congrès ren dafa tombé fait association bi a 30 ans d'existence. Nous avons dit kon le congrès dina am tombé l'association association bi am na fu ci ci yagg ci li nga li nga société sénégalaise motax bañuy élaborer programme li nga congrès bi dañ ci ay programme yi nga ñu càmbar li nga xamante ne moom mooy liggéeyu association bi ak jaar-jaaram xool yi nga xamante ne moom moo ci yu ci baax ñu mun ko wéyal di ko continuer waaye yi nga xamante ne am na ci ay jafe-jafe ak ay gàllankoor ñu xool naka lañ ko mën a soppee ngir mën a andi ay doxalin yu bees pour que association bi mun di jëriñ ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu ci nekk waaye mu amal njëriñ képp ku nekk ci société sénégalaise bi ndax loolu mooy li nga xamante ne moom mooy sunu sunu mbébét mooy lépp lu ñuy def rek. mu am jeexital ci li nga xamante moom mooy doxalin doxalinu réew mi. waaw dëgg sunu suñu congrès ren ñu ngi ko tenir ci contexte ba nga xamante ne réew mi jafe na euh, bëri na ay yëngatu ay yëngu-yëngu lu jëm ci wàllu politique waaye bëri na ay yëngu ci jeunesse bi ndaw ñi nga xamante ne ñooy nekk toll ci wër li nga xamante ne moom mooy xëy te amaguñu yaakaar ni dinañ ko am mu leen di yóbbu ci yu bëri yoon ñi dem ci yoon yi nga xamante ne ngir génn ci réew mi ut li nga xamante ne moom mooy xëy moom pour mun koo amee ci feneen fudul senegal loolu nag bañ ko seetloo ñu li nekk suñu taxawaay ci loolu mooy naka la ñuy woo suñuy moroomu jeune suñuy moroomu ndaw ñu xam ni nit ki mun naa nekk senegal góor góorgóorlu fi di fi liggéeyee ba mun fee tekkee ba am fi lu mu suturloo ci li nga xamante moom mooy ci dundu àdduna waaye tamit di woo ñi nga xamante ñooy suñuy njiit ñi yore état bi ñu jàppale jeunesse bi ñoo xam ni jeunesse bi dañoo nekk ñi nga xamante ne ñu ci ëpp ci ñoom jàng nañu ba pare di am yaakaar ni dinañ am xëy di nelaw di yeew bés bu nekk di jàkkaarloog seen i wayjur te mënuñu leen satisfaire mënuñu leen a dimbali ci li nga xamante ne moom mooy coono yi ñuy daj ci mbir mu kër gi loolu yóbbee leen ci yu bëree bëree bëri ñuy dem ci li nga xamante ne bëri na ay ay risque ci loolu la ñuy woo li nga xamante ne dañoo suñuy kilifa sunuy ngiit mooy état bi ñu jàppale jeunesse bi ñu jàppale ndaw ñi ci tegal leen ay programme ak ay politique yi nga xamante ne au moins ku ko gis dina am yaakaar ni ah xel mun naa dal bu ma toogee Sénégal xëy na lii nga xamante ne mooy sunu kilifa li ñu teg dinañ ci mën a am ay xëy dinañ ci mun a am lu ñu suturloo ñun ak sunuy njaboot waaye dinañ ci mën a am li nga xamante ne moom la ñu dimbalee sunuy sunuy waajur